Ndongo Fall maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay. Ndongo Fall nga nekk euh, coordonnateur bu collectif des concessionnaires du nettoiement du Sénégal naka ngeen associé euh, kuréel gu waaw kuréel gu ni mel dañu gisoon ne dañuy liggéey te vraiment euh, liggéey bi xëy na dox na ci population bi dox na ci état bi mais nun ñi nga xam ne noo koy liggéey wax dëgg am na nañu problème problème bi nag problème mu xaalis la parce que mboolem yi nga xam ne protocole d'accord yi nga xam ne ñoom la signé woon ak ñoom. bi ñu ba sonn bindoo nañ directeur UCG euh, muy Mass Thiam bind aussi le président de la République euh, euh, liñ ko bind mu mu ko ci directeur du budget toog nañu woon waxtaan ba def un protocole d'accord ñu ne na woon à partir de mois de juin li ñu yore loon en deux mille vingt et un danañu ko éponger au mois de juin mais malheureusement tel n'est pas le cas protocole boobu respecté wuñu ko parce que fii may waxe ak yow am na ñaari weer yoo xam ne jël nañ ko yoo xam ne fayuñu ñunu ko ba pare li ci gën a metti encore xam nga ni deux mille vingt deux léegi mu jeex parce que fi mu ne noo ngi ci huitième mois daanaka deux tiers yi dem na te fii may waxe ak yow ñu ngi ne wax na ni budget bi jeex na budget bi ñuy luyee UCG moo jaadawul parce que ku ne xam na ne dëkk bi dafay manque tey jii ñu ngi wax naan ay seize millions ak dix sept millions d' habitants boo bëggee xool la nga xam ne moom nga daan fay ci bi nga xam ne noo ngi nekkoon quinze millions d'habitants loolu du mën a nekk te it wax dëgg yàlla gis na ne dëkk bi changé na parce que Mass bi mu jëlee service ba léegi gis nañu dëkk bi vraiment macha allah liggéey bi tegu na ci yoon mais actuellement daal les vrais perdants mooy nun opérateurs yi nga xam ne ñooy ànd ak ñoom di liggéey est-ce que mënoon mën nañu xam euh, ban type de collaboration yi ngeen am ak UCG euh, bi ngay tudd euh, léegi kuréel gi nga xam ni mooy gérer wàllum ordures yi fii ci Ndakaaru ak ci Sénégal mën nañu xam lan moo leen lëkkale ak UCG li nu lëkkale ak UCG UCG moom mooy organiser liggéey bi nun ay oto lañ ko jox am ak moom contrat oto yi ñu koy jox nun nooy euh, collecte mbalit mi euh, di ko ànd ak personnel UCG euh, di ko yóbbu mbëbës loolu lan am ak moom di ko def mais malheureusement li ci nekk daal moo di ne actuellement am na nañu problème mu trésorerie parce que toog nañ lu yàgg loo xam ne fayee suñu mbaa boog li ñuy fay ay miettes la yoo xam ne mun a fay sax gasoil bi ay ay centage lañ ñuy fay te suñ sañoon daa ñu doon fay pour facture parce que ñu gën a am visibilité mais à chaque fois arrosage bi lay ni fii ñu naan la vingt pour cent lañ la fay ak pour cent lañ fay wax dëgg loolu tam lu lu lu lu lu métti la ci ñun daal loolu daal du visibilité bi gën bi nga xam ne moo ñu gënal. mais mais euh, ngeen lëkkaloo kon ak UCG léegi ñiy dawal woto yi euh, yéen concessionnaire yi yéen leen di fay wala UCG moo leen di fay. ñiy dawal oto yi nun ñoo leen di fay. nooy dépanner suñuy oto noo ci def gasoil ñii dawal oto yi aussi noo leen di fay. bu paanee yéen a koy gérer tout ak problème bu mu ci mënti am. problème bu mu ci mënti am nun noo koy gérer ak seeni koppar. ak suñuy waaw. ñiy ramas mbalit mi. Euh, ci quartier yi. UCG euh, moo leen di fay wala yéen concessionnaire yi. Mhm. ñiy ramas mbalit mi UCG moo leen di fay. ñooñ ci ci UCG lañ nekk. donc euh, tey jii ñu bëgg nga ñëwaat ak ñu Ndongo Fall ci mm-hmm. bor bi nga xam ne muy état wu Sénégal wala UCG pratiquement c'est la même chose mm-hmm. bor bi nga xam ni ameel nañ leen ko fayuñ leen ko ba ngeen di daal di alerter ngeen expliquer ñu bor boobu naka la demee ak ñaata la. bor bi ñu yoreel daal environ war na toll ci dix milliards je n'ai pas le chiffre exact mais li ci nekk moo di leenu tax di jooy bor bi ba muy fi mu ne actuellement li ñu yoreel ci mbalit mi ba mbalit di mbalit ba léegi kenn mësuñu ko yoreel bor bi rëy na rëyaay bi boo xam ne kenn mësuñu ko yoreel ndax toog juróom-ñetti weer yi la fayul wax dëgg yàlla dafa metti te fii may waxee ak yow facture yi deux mille vingt et un ba léegi épuisé épuisé guñu ko te fi mu ne noo ngi ci mois presque trois trois quarts année bi jeex na. te fii may waxee ak yow nee nañ budget bi jeex na dañuy xaar ay LFR ah bi demee ba sonn comme ay patriote lañ ci dëkk bi lañ dëkk duñu bokk ñuy yàq dëkk bi duñ ko def moo tax ñun gisoon euh, bindoon président de la république pour mu dimbali nu ci li nga xam ne mooy euh, euh, facturation yi mais malheureusement président de la république dafa wàcce dossier bi jox ko directeur du budget directeur du budget woonu réunion nun ak Mass Thiam ñu def am benn protocole d'accord ñu won nenu à partir du mois de juin li ñu yore mënuñu leen ko fayandoo benn yoon mais juin deux mille vingt deux lu ñu leen yore loon danañu ko éponger ba jeex ñu ne chaque mois du leen jox temps mais temps booba mënuñu cee jot parce que actuellement am na deux mois yoo xam ne sote nañ ko te ba paree ni ñu koy fayee tam vraiment gënaluñu parce que ay ay pourcentage lañ nit fay te pourcentage yooyu dafay dem ba gëlëmal suñu comptabilité duñ xam exactement li ci nekk comme que ñun ci dëkk bi leen dëkk lu am ci dëkk bi leen koy defee tam moo tax ki nga xam mooy kilifa dëkk bi di président de la république à savoir son excellence le président de la république Macky Sall lu bëgg mu dimbali nu taxawunu ci lii ndax ñun bëggunoo grève xalaatunu grève soxluwunoo grève kon pare wu leen pour grève banque seeni loxo plus de cœur comme ça bu ko déggee ndax yàlla mu wàllunu comme ni ñu waxee de boo moytu da ngeen di banque seeni loxo te seen oto mbedd yi fees dell ak mbalit euh, kon fas yéene leen ko def surtout ci période màggal bi ñu jëm waaw fas yéene nun téye suñuy loxo banque banque kii bi ndax yàlla dogal na ne kii nga xam moo fi nekk di Mass Thiam am nañ ci moom respect lool rus nañ ko lool resunoo tam président de la république yi dégg ne opérateur euh, concessionnaire yi nga xam ñoo nekk ci mbalit mi taxaw nañu loolu moo waral nag bala noo àgg ci loolu mu ne nan def cri de cœur mun defee cri de cœur bi comme ni mu ko daan defee ndax moom bëggul kenn ku jooy comme nga nag ñun fi mu ne sanuy rankoñ daanaka tuuru na moo tax nu bëgg mu dimbali nu toog waxtaan ak ñun mu xool ndax xam nañuy résoudre problème bi. mais dañoo gis Ndongo Fall euh, problème bi ça ça revient souvent concessionnaire yi état bi amel na leen tant de milliards euh, boo moytul dinañ dakkal liggéey bi lan moo tax euh, même problème bi mooy revenir pratiquement chaque année. mais li waral problème boobu di revenir budget bi dafa am dafa am loo xam ne moo koy doxal. Mhm. bi nga xam ne moom lañ jox UCG nag moo jaaduwul moo mënta liggéey liggéey bi. masse góorgóorlu na ba taay collecté na ba taay mais mënu ci dara. parce que yow bu fekkee ne population bi moom it ne ak quinze mille euh, quinze millions d' habitants. li nga xam ne moom nga doon jox euh, euh, mbalit mi moom nga koy alloué ba nëgë ni tey tam ba ca booba à chaque fois au mois de juillet ñu ne budget bi jeex na dañuy xaarati budget bi déwén wala du wut ay LFR loolu moo jaaduwul dañoo war a xool ku bëgg un bon résultat da def les moyens qu'il faut. maas jàmbaar la mais amul moyen yu mën a liggéey loolu nag état moo ko ci mën a dimbali moo tax ñu ne nan yuuxu bu nu président de la république déggee comme ça dananu woo nu toog waxtaan ak moom ñu jéem a xool na gën a rafet. Ndongo nga ne boo ko xayma état actuellement amee na leen dix milliards euh, dix milliards ngeen am ay employés war leen a fay am ay euh, oto yu ngeen war a réparer mënul nekk yan jafe-jafe encore la concessionnaire yi di am actuellement ndax dix milliards yooyu nga xam ni état daf leen ko war a jox te joxu leen ko. jafe-jafe yi kay premièrement mooy banque yi nga xam ne ñoon daan dimbali actuellement nu góotuñ ñoo jox dara parce que nous sommes découverts yi dem na ba jaaduwul banque yi tiit nañ nu góotuñ ñoo jox dara. pourtant gars yi neen yéen ay milliardaire ngeen de. xaalis kese ngeen ci ay wax rek. xam nga nit moom bu fekkee ne da ngaa nekk su sutura. Mm. ñu lay xëy xëy ngay ngay xëy di liggéey dina bëgg a dikk kenn ku ne njort moom kenn ku ne mën ngaa njort ci moom. Mm. waaye la ñuy njort ak li am ça fait deux parce que ñëpp danoo fees ak i bor fees dell dell ak ay bor. Mm-hmm. te wax dëgg yàlla lool nag état bi moo nu koo teg. ak benn jafe-jafe encore bu bu weesoo banque yi leen nangul nanguwul lebal yan jafe-jafe ngeen am encore ndax bor bi. mais fournisseurs yi pétrolier yi fi mu ne